Assalamualaikum mbokki Senegal, mbokki internautes yi maa ngi di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant euh, di den xamal ne yéen a ngi euh, ñuy seetaan foo mënti nekk rek ci biir àdduna ci biir Sénégal ñu dalal ñaar ñoo xamante ni euh, ay kangam lañu di ñoo xamante ni ay borom xam-xam lañu même su dul ci wàllu politique aussi am na ci côté yu bari yo xam ñu yëngatu di ay borom xam-xam ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci li nga xamante mi ngi jëm ci li ñuy Covid 19 bi rawatina discours bi nga xamante ni moom la njiitu réew mi tenir euh, ñu nar ñu wax ñoom it seen xalaat par rapport ak discours boobu euh, donc euh, à ma droite maa ngi ki nga xam ne moom la ñuy wax Doudou Dieng bokk ci parti bi ñuy wax parti PASTEF di parti bi nga xamante ni donc ki ko jiitee mooy Ousmane Sonko ak Atoumane Ndiaye di responsable moom it bokk ci parti bi nga xamante ni moom mooy parti APR ñu xam ko ci bu baax a baax moom it.

ci wàllu bi nga xam mooy ubbite école yi ak euh, maanaam li nga xam mi ngi jëm ci euh, ndimbal li nga xam ne wax nañ ko euh, ñetti point yooyu xam naa ne moom la jéem a tënk Doudou ma bàyyi la nga nuyoo Doudou Dieng salaamaaleykum. waaleykum salaam Pipa di nuyu suñu mbokku internet yi di nuyu sama naataango bi ñu ko toogal nga xam ne moom laa seqal waxtaan bi di sëñ Atouma di ñaan yàlla waxtaan bi ñu tàmbali ko si bisimilah àggale ko si alhamdulilah te lépp lu ñu fi wax yàlla na doon li nga xam ne mooy jariñ askan bi. ñu bañ see gis benn yoon suñu bopp te di profité si weeru koor bi di euh, bal ak ñëpp di baalu ak nit ñi di ñaan yàlla euh, ni nga ko tàmbalee si bismillah rahmaan rahim yàlla na ko àggalee noonu sax alhamdulilah bi alamin te yàlla nanguñu suñu euh, koor nanguñu bépp jàmm yàlla xam def nañ ko si di ñaan yàlla it li nga xam mooy feebar bi yàlla na ànd ak koor gi génn réew mi génn àdduna bi yëpp si bakk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakk ramadan merci beaucoup atuman salaamaaleykum maaleykum salaam asalaamaaleykum mbokk internet yi comme ni sama nattangoo waxee duudu man it dama lay delloo nuyoo bi di waslu aussi di baalu doomu aadama yëpp àq di leen baal àq ci weeru koor gi ñu ne te ñaan yàlla aussi comme ni mu ko waxee mbas mi ànd ak weeru koor bi génn Sénégal ci lu mu gën gaaw. voilà euh, Doudou euh, ci yow laa commencé woon ci yow lay ñëwaat euh, discours yu réew mi ñu jël ko par point ubbite càkk yeeg jumaa yi est-ce que du du pression. famille maraboutique yi moo ko waral wala boog décision la boo xam ne jàpp na ne dafa ñëw ci ërëm nan nga ko jàngate waaw euh, soo xoolee la taxoon ñu tëj si njëlbeen li nga xam ne mooy jàkk yi euh, ak fi ñu toll fi ñu ko ubbee soo xoolee day am toujours lu xam dina jaaxal nit ñi ndaxte ba ñu tolloo si benn kaa wala fukki cas rek li ñu tëjoon jàkk yi def état d'urgence def couvre-feu euh, bu ñu demee ba wàll biir nag ñu jékki-jékki ne léegi nañu ubbi jàkkee te ñu ngi toll presque fi mu toll yi si ñaari junni nit yoo xam ne am nañu feebar bi ak téeméer ak juróom euh, si ñi xam jot nañ ko am fii si biir réew mi ñu ne ubbi jàkka yi dama naa ne dina tey xel dina jaaxal nit ñi parce que du méngoog doxalin ak ni nga xam ne moom la jamono bi doxee fi mu toll nii parce que dama dama yaakaar ne euh, kii booy jël maanaam décision booy jël rek dafa la méngoog jamono boobu nga xam ne moom nga fay jël la mu méngoon la nga xam ne la jamono bi doxee moo jàppale ne kon donte leen ne gëm naa ne war nañ di def évaluation mesure bu ñu teg rek war nañ def évaluation xool éval mesure bi lan la joxe ban impact la am comme ni ñuy def évaluation ci marché yi comme ñuy def évaluation ci yeneen yeneen war nañ def évaluation xool jamono yi nga xam ne tëj nañ jàkk yi euh, lan la wundu lan la jur li mu jur nag ñu xool lan lañ ko mën a apporter pour wàllu yombal ko walla ñi nga xam ne seen xol parce que ku nekk ak li sa bëgg-bëgg am na ñoo xam ne seen bëgg mooy dem jaay am ñoo xam bu ñu toogee bés te demuñu si jàkk yi dafa am lu bëri luy wàññeek si ñoom ñooñu ñu xool naka lañ leen di mën a satisfaire si wàll goo xam ne te du gaañ askan wi du doon loo xam ne day indi euh, euh, euh, mbas mi saawaw si biir si biir dëkk bi moo tax ma jàpp ne dañ ko woon évaluer xool waxtaan ak boom xam-xam ak nitu diine yi ñu xool lan lañ si wala mën a tënk lan lañ wala mën a jël yan matuwaay bu ko defee bu état gisee ne am na matuwaay yooyu ubbi mais ñi mu tëb tëb nii ubbi ah indi nañ njaaxare donte ñun ñëpp ay julli nañ bëgg nañ julli si jàkk yi bëgg nañ euh, euh, dem si jàkka yi di ñaan ak def lépp mais nag jur nañ njaaxare parce que dama yaakaar ne jamono bi euh, bu fekkoon ne déglu nañ bu baax ñi nga xam ne mooy ñiy ŋànk affaire yi donte moom nee na am na ñu mu déglu mais dama jàpp ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk dëgg te ñu xamoon leen ñi jiite liggéey bi dama jàpp ne ñooñu gisantewul ak ñoom waxtaan na ak ñoom moo tax mu jël décision bi d'accord, merci beaucoup euh, Atoumane euh, yow y vu euh, réouverture mosquée réouverture mosquée lecture Je hein. suis en toute responsabilité. Mhm. président def un message à la nation le 11 mai. ci message yi man fukki ak mais je bi nga wax ci wax sama xalaat man président parce que majeur vacciné la mhm. nga teg sa tànk ci jàkk wala jumaa tànk pandémie bi ñu jub nii mu commencé gën a bëri jeexul complètement Sénégal wala mu wàññeeku ba mu leer na ni comme ni ko islam santaane mhm. yoon may nañu ñu mën a dellu si jàkka yi wala ci jumaa yi fi may daanalee mooy xam nañ ñun ñëpp même ñi nekk nga xam ne ñooy les professional de santé wax nañ virus bi assemblement ak contact lay bañ kon man sama xel moom ma dul may ñu ne liikat lii lay bañ ñu ne lii da koy waral ngay dem di dox ci loolu mm-hmm. ba tax na daal damay kon ne tënku ci charte islam parce que jamono yonente yi amoon na fi mm-hmm. ba fi mbas amee sonal ñëpp dañ daan wax nit ñi nañ toog seeni kër di julli mm-hmm. te yàlla foo nekk julli ñaan foo toll di julli di ko ñaan ñaanam allah kulli alin dina yegg ci moom te su loo may dina la may ba tax na man xalaat bu gàtt bi ma ci am mooy période bi toll pandémie bi ak fi mu toll sama xel may ma may dem ci ay jàkk di julli wala ci ay juma Euh, am na beneen point à part jàkka yeeg juma yi li jëm ci wàllu école yi école yi aussi dañ ne le 3 juin euh, classe yi nga xam ne euh, dañoo nekk en examen ñoom it donc ñu ñu ubbi est-ce que loolu ban ban nan ngeen koy jàngate en tant que aussi professionnel de de du métier de l'enseignement ki nga xam ne tey day yëngu si wàllu jàngale li ma si jàngat mooy ne loolu bu man xaru la

ne classe bu nekk am 20 élèves te xam nañ suñ classe yi da ngay gis classe yoo xam dafa am lu mat 75 élèves tey boo demee CS1 bii CS2 dangay gis classe yoo xam ne day am plus de cent élèves yooyu nga ne da ngay jël classe bu ne def ko 20 élèves te la sa njàngum élémentaire du njàngum moyen du njàngum secondaire parce que élémentaire sax mën nga ne su ma tasee classe bi daf ko ay pàcc-pàcc ci classe yi élèves maître yi nga xam ne yoruñu CI yoruñu CP yoruñu C1 ñooñu mën nañoo ñëw bu maître bee waxee ne fii laa yem

ñooñu lëmb CM ak lycée dafa am ñoo xam ne am nañ droit jàngale CM mais amuñu droit jàngale am ñoo xam ne dañu am droit jàngale si lycée kese xam nga bu fekkee ne dem na ba ba ba néew ba néew ñu wàcc mën leen lañ wàcc tuuti si CM bu ñu dimbali CM kon ñooñu nga xam ne dañoo nekk classe d' te ñu bokk bu mu jëlee école boo xam ne dafa am benn profilo yor lu mat ñetti classe wala ñeenti classe kooku boo nee damay pàcc élèves yi par 20 20 20 naka lay mën a jàngale ñu mat boo jëlee classe boo xam ne 75 élèves moo si nekk classe boo xam beneen classe boo xam 60 te man li may wax ni ay école yu lu si école bi ma ne benn classe boo xam 65 élèves ñii 75 élèves ñii 80 élèves ay terminal ak terminal TS yoo xam ne day am ay 40 élèves ñooñu noonu la mën a pàcc pàcc te benn prof fi la moo leen kon bu wan la ne loolu mënut a ne kooku moom mooy dee prof boobu boo xëyee day jàng ba seen jékki-jékki daal ñu ne la xam ne dee na ndax la lan coona mënul ne tey boo jëlee prof histoire bi boo tojee classe am tey boo jëlee lu leen lycée Demba Diop

wala nañ man xam na neen ñu doxale école bi manam tay ñu gis né école bi tay dem nañu ba euh mu toll nii ñu né nañu d'accord né fi comme président moo ne fii juillet septembre mbas mi que ñen japp ne dañ wala mëna jéx ci si réew mi si ñu ko jox ci xel xalaat nañu dem ba fofu parce que décret mom moy né décret école mom mo koy pré mo koy signer né école mu ubbi le 1er octobre jéx le 31 juillet mom mo koy signer kon man na né légui nañu suspendre bu ñu ba octobre ñu prolonger mu def ben deuk ba moo xam mooy prolongé année scolaire parce que élève defoon premier semestre ñu prolonger année scolaire bi élève yi nekk classe intermédiaire ak ñi nekk classe ñep jang bu ñëw ba décembre wala euh, euh, euh, octobre ci novembre décembre ñu wajal foofu examen bu ko defee année scolaire bi commencé presque côté fin décembre jëm euh at yi bu kay année xaw a duggante ñaar at yi parce que bo gisee PEPAL li mu mettre moy classe intermédiaire yi nga xamné ñom lañuy bayyi nasaxal leen parce que it boo gisee examen bu ñu ko évaluer cycle primaire CI la ba CM2 loolu la ñu évaluer cycle secondaire c'est euh, euh, euh, moyen sixième la ba troisième cycle moyen secondaire c'est seconde ba terminale mais ñoon boo leen bàyyi mooy wan chaque at ñun dañuy sauver année bu ñu sauver année mooy lan mooy def nañ examen mais duñ bàyyi xel taux de passage bi dafay faible da ngay gis benn classe boo xam ne am 100 wala 80 élèves nga gis 20 élèves ñoo si am moyenne taux de passage bu faible loolu du ci baye xel duñ ko jangat ci ci wàll bi moy waaye kon fim mu ni euh askan bi nañu baye xel ni affaire bi du examen kessé mais xalé yoy ñoy suxat ëllëg ba mëna am taux d'examen bu baax motax tax suñu taux examen toujours boko xoolee ay. 30 suma la dégloo dal ce n' pas possible. c'est pas possible. voilà Atoumane yow nan nga jangaté réouverture de l' école. man da ngay xol discours de à la nation président ci première mot yu mu avancer dafa ne projection bi ko jox sur la pandémie day jeex entre fin août début septembre. Mhm. kon pour man y' a pas une précipitation du juin. Mhm. déjà ñun xamaguñu pic bi fan la toll pic bi ba tey atteindre guñu. Mhm. te nee nañu feebar bi ci mag la gën a gaaw. mooy troisième âge wala koo xam dafa am maladie chronique tel que tension wala diabète wala yooyu. xale yi ñu bëgg a def des mesures de barrière ñu ñëw raxasu nga jox leen gant jox leen ay masque ñu takk nga jox leen ay gel. peut-être trois premiers jours yi dinañ ko defar parce que élève CM2 mhm. élève primaire mhm. mooy treize ans la maximum treize quatorze ans mhm. nga ñëw jox ko mu def ko ñaar ñetti fan après da koy soofantal beneen cas de figure mooy mag ñi ci biir kër gi xale yi ñoo nar a jël virus bi ci école ba yóbbu ko ci biir kër yi pour ñu mun a changer paradigme daal comme que def na projection ne août ak septembre la man de su ma laajoon sama xam sama xalaat dinaa ko ne da koy reporter parce que kilifa la te xam naa day déglu. Mhm. reporté yóbbu ko ouverture octobre bi tang bi ñu continuer année bi au mois d'octobre, mhm. octobre. novembre décembre muy ben trimestre ñu jeexal année scolaire bi. bien sûr suñ ko jeexalee ñu war def examen def ko début janvier ci première quinzaine janvier bi mu pare. Mhm. ñu démarrer benen ouverture année prochaine. après dabu ko. suñ démé ba ci ki bi au fur et à mesure pendant deux ans ñu jëlaat suñu cycle normal. bien sûr. parce que pour man dara dab fi jarta yàkkamti parce que xamuñu pandémie bi exactement fan la jëmam ñun hmm. ñun on en situation de guerre am na ñu koy xelal mu ngi def mu ngi joxe vision ministre de l'éducation di doxal te dafa damay attirer sa attention ci lu ndaw bi pa ñiy def examen le ciblé ne ñi nga xam ne ñu ngi ci classe yu ndaw yi tout tànk yi na ñu jàng par exemple créé nañ fi l'éducation à l'école hmm. dem ci les nouvelles mais di nga dem dans les points les <laughs> xamuñu loolu xale yi am na su ñoo xam ne jàngatuñu mhm. parce que fi ñu mu naan am possibilité jàng mhm. amuñu ko soo amul auto yi boobu mooy déjà yow am nga problème suñu retourné ci loolu fi may daanelee surtout mooy ñi nga xam ne ñu ngi nekk en classe de terminal. Mhm. ministre bu mu def fixation na xale yi def examen su ko ci defee rek dina dugal ci président erreur moom ci li mu war a def mooy ñu ngi ci jëm ci pandémie boo xam ne nañu xool comment gérer la situation ba génn ci jàmm parce que wër moo mën a ànd ak jàmm. Euh, donc euh, su may déglu li ngeen wax nii est-ce que du firndeel ne euh, président donc état bi ci boppam dañoo nekk di tâtonner. dañoo nekk di tâtonner maanaam daal amuñu amuñu lu leer daal su tayee ñu ne donc affaire bi egg na foo xamante nii nañ def couvre-feu nañu wàññi est-ce que wax waxeet nekkul ci biir. Euh, man dama japp dama ànd ci loolu dama japp ne dafa am tâtonnement bu signé parce que euh dafa am si dañuy wax naan départ guen arrivé mous moyen bo xolé dé ñël bénn président dafa génne ak benn mine bénn tombe ferme mo wax ak askan bi def bénn discours de guerrier ñu xamné vraiment le général est là devant euh ses hommes wax ak ñom askan bi yëpp commencé né ah comme demee ñëpp tit ñëpp tit bi ñu tiitee ñu nekkoon kon nañu def nangam mu ne su fekkee ne taxawoo leen ni bu ñu demee ba af yi gën a teeng damay gën a tengal yëf yi et d'ailleurs sax dinaa jël ndimbal jox leen pour que ñëpp mën a toog si biir kër yi bañ a di dem di taxawaal si loo xam ne amul njariñ ndimbal yooyu mu dégagé ko dégagé ma 65 milliards kon tey bu ñu ñëwee ba léegi nii ñu gis ne euh, fa yëf yi yokkoo ma ma jàpp ne boo xoolee tey jii ñu ngi si 2105 cas yi nga xam ne am nañu jàpp nañ fii euh, euh, virus bi fii si Sénégal te si biir loolu boo ñu am 25 morts euh astafurlah 21 morts ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan si 21 yooyu man boo defee ratio dafay mel ne 100 boo gis rek 100 cas bu ñu am rek am na kenn ku dee 100 cas boo gis am na kenn ku dee mooy boo jëlee 1 sur 100 1 pour 100 1000 pour lay jox donc 10 euh, 10 donc 100 yoo jël rek am na am na am na am kenn ku dee kon pour man la ne loolu mooy li fi ne ñu dem ba foofu nag président ñëw nag fa ñëpp doon xaar yi mu gën a teengal

Nous xam yëf yi lañ ko conseil que conseil boo xam ne dans les bureaux lumière moo tax ma jàpp ne président li muy def euh, daf dem sans pour autant mu bàyyi xel dëgg dëgg dëgg dëgg askan bi la gis même avant muy les jàppoon naa ne nii la mën a defee it dafa may nopp lool waa waa waa réew waa bitim réew muy surtout lu mel France moo tax jamono passé ba Côte d'Ivoire yeewi nañ seen nit nag ñëpp dem laa ne ñun de ñaan xaar bés bu defaatee discours su foofu lay jëm te it wax dëgg yàlla bett ma ndaxte France moo commencé ne day yóbbu jàngee dañuy dem jàng dañuy dem déconfi déconfinement maanaam génn nit ñi ñu génn si kër yi dem liggéey ñoom it ñu topp si sans pour autant ñu méngalu ko li nga xam ne moom la askan bi dund moo tax man foofu daal jàpp naa ne tâtonnement la daal. merci beaucoup euh, euh, Atoumane nguur gi dañoo nekk di tâtonner wax waxeet ba pare ba pare mu mel ni France dañoo coloniser. Moussa nous on est une république libre démocratique et laïque Nous eu une indépendance depuis 1960 colonisation mondiale. la na fi aspect bi le président des déglu professionnels de santé parce que ce matin déglu le directeur de cabinet du ministre de la santé en l'occurrence docteur Aloyse Diouf Je suis convaincu. wax convaincre peut-être qu'il y na ci am nit mun na am ben vision di doxal nga man de la le doxalin bi ñaari vision yu wute nga bañ a d'accord ak moom loolu moom dañ koy may ku nekk ku ci nekk am sañ-sañ boobu ne ah président kat man li mu man xalaatee naa neneen mënuñu ko tere benn doomu aadama fii ci Sénégal mais moom ñetti message yi mu jox yëpp daf ko topp de manière chronologique te ci suba ba may déglu DC mu ne ma carrément ba léegi on maîtrise la situation ñu ngi bëri ñu ngi naan relâchement mais du relâchement assouplissement la Manam ci kalama wolof dañoo xaw a yolomal li tax nag ñu xaw a yolomal foofu la est-ce que est-ce que est-ce que yu bëri te loolu c'est la nature du sénégalais nit dina def dara nga ne ah lu tax mu def lii nit waroon def dara toog nga ne ah lan moo tax mu toog parce que man dégg naa ci ñaari version wëy dafa tëj gars kaas ne mu tëj mu tëjji gars yi di kaas lu tax mu tëjji mais loolu c'est l'esprit du sénégalais mais moom en tant que président de la république njottu naa ni li tax mu def ko fu wóor la ko teg tegu ko ci ay tâtonnement wala leneen parce que da xool dafa def par étape muy def par étape. am nay jamono mooy li waral sax dund bi ñu bëri ñu ngi doon wax confinement total mais ñun xam nañu ñu Sénégal confinement total mënu fi am parce que nous Sénégalais on a l'habitude dañoo judd di vivre en communauté màgg di vivre en communauté ci la ñuy màgget nar cee dee parce que ñun Sénégalais en général moo tàmm la vie communautaire yow da ngay am sa kër def toutes les barrières mesures barrières yëpp nga teg ko ba jël paan ak eau de teg sa buntu kër. ñu naan kii affaire tubaab la ñuy jaay ki nga takkaloon nga takk masque ñëw indi ay masque may leen xëy wàcc ñëw xool masque doo gis ñu takk ko loolu mooy daf ci am ñoo xam ne ñu ngi rey seen bopp di respecter les mesures mais am na ñoo xam ne gëmuñu ba léegi gëmuñu ni maladie bi am na foofu la paradoxe bi nekk léegi nag il a changé de paradigme parce que ci suba dee mu ngi koy wax am na yeneen mesures yu yoo xam ne dañu am dem nañ sax ba naan les communications yi ñuy def 10 heures amna na lu muy demee dinañ ko bàyyi di yónnee ay points de presse au niveau des des des des rédactions amna benen comité bu ñu bëgg créer mais man dama ne amna benen lecture les zones yi nga xamné ñoo gëna ciblé en l'occurrence Dakar ak Touba tay soo fa naroon def confinement total musiba am léegi actuellement xam nañ ne le virus envahir nañ ñoom benen méthode lañu bëgg jël pour jéem ko contraindre léegi nak soy contraindre loolu té xamago résultat yi fan lay jëm man à mon humble jarul won ngay ubbi école. jarul woon ngay ubbi jàkka ak juma parce que dem nañu ba nit ñi tàmm ko léegi nag pour l'allègement du couvre-feu d'ailleurs nee nañ woy mardi la waroon def discours pourquoi mu def ko lundi le Sénégal est né pour dire toujours pourquoi loo koy indil mën a la pourquoi dem naa bay tooñ sa benn collègue nekk yow mbaa yàlla du naan kaay dugg àjjana sax nga koy naan waaye pourquoi est-ce que waruñu def ni def nii ba mu fomm ko di ko tooñ hmm. parce a l'habitude peut mais li ma ci xam ba mooy du question copier le français D'ailleurs, ailleurs am na benn terme boo xam ne dama koy wax C'est un membre de Pastef ah. grand Ousmane. Mm-hmm. Ousmane Diop xam naa ne mm-hmm. xam nga ko. mu Macron a dit vivre avec le virus président Macron vivre en présence du virus ma ne ko y a le mot avec y a le mot en présence bokkul. quand tu vis avec quelque chose mooy yàgg moom yéen bien nekk mais vivre en présence moi, loo xam sentir nga mu ngi sa wut nga koy moytu ma man je préserve vivre en présence d'un danger moo gën may vivre avec un danger mu ne ma yow sa kàllaama Alboury Ndiaye yi doo ko bàyyi ma ne ko argument contre argument mais mais mais quand même Atoumane euh, dernier discours u Macky Sall bi dafa mel discours général boo xam ne da doon guerre ba ak mu tekki affaire yi sànni fële foofu nag foofu la sénégalais yi bëri juume ah, ah, parce que xam nga lu tax ba léegi fu muy mujjee si dernière phrase il appelle à la solidarité il appelle au respect toujours des mesures de barrière su newoon tikki leen masque yi sànni leen gel yi kay loolu mooy abandon mais ba léegi mesure yooyu mu ngi imposé pour ñu def ko ba tey te en plus mesure yi mu wax ouverture mosquée ak yooyu dañ koy accompagner parce que le ministre de l'intérieur il en conclave avec les religieux dañ koy normer duñ ñëw rek gars yi def ko ci xoode déedéet am nay directives yoo xam ne moo koy accompagner te gëm naa ne nit ñi ci loolu lañ jëm. Euh, Doudou nan nga mën a comprendre jumaa ji ñu ubbi euh, euh, ñu nodd ñu ne fukki nit ak juróom ñu dugg loolu loolu fan

Euh, euh, euh, loi yëpp assemblée voter ko lépp ne ko léegi assemblée ñu amatu sa assemblée dafa dé suñu assemblée mom dafa dé te loolu grand grave si réew donc buñ ko joxee lepp yaay nday yaay bàyyi kon mom ci bopam walu sét rek li ne xam nga sang wax ne mom bo jël bu jël dama ñen euh euh basique mu ne kërëm biñu ñu génnee mesure dafa gis ne mën na njabootam toog leen nangam ak nangam ak nangam buñ ko déggee dañ koy def parce que en tant que responsable en tant que père de famille il prend sa décision mais dom yu ne ah non papa bu jëlé monsieur nangam boba bu ko défé rek am na rébellion mais donte la xeyna na si njaboot ga am na ñu bëgg mais comme cadre kilifa wax ne dañ ci dëppoo makki fofu won dem ça dafa won xol li nga xamné moy li intéressé askan bi parce que ba mu né amna mbass bi amna Chine ñu né nañ jëli réew mi dafa né ñet du jëli pourtant réew ya jëli motax ñu teel am ci mbass mi ay France ak ay Italie ak ñoom seen réew ma mën ñëwé la mbas ma am mais fa défé erreur. ba mu tëjee automatiquement la waroon a tëj am woon sax xaar ça il faut prendre parce que yow xam nga sa askan parce que da nga jàng sa socialiser askan sa askan ni muy dundee yow xam nga sa askan dañuy dund si la mission demalante kon lii tam mbooloo lay bañ kon naa te jël le devant tëj tëj te bàyyi li mën a dem mooy cargo yi gis nga démb rek am na pourtant ñoo xam ne euh, avion bu ñëw indi ay franc ay ay sénégalais kon ñi nga xam ne ñu ngi foofu tëjoon leen mën nga indi bu ñëwee nga confiné leen. su fekkee ne baax na rek nga dugal leen kon man dama ñàpp ne comme loolu nag di naan jël euh, njëlbeen woon te amul bu ñëwee ba fii nag mesure bu mu jëlati rek dafa la étouffer maladie bi si biir te bu étouffer ko nag mooy ne nit ñi sorianto bu mu mayee kenn lenn c'est-à-dire am na fa am boo fa tolloo il faut un bras de fer xam nga sous un gant de velours. d'accord ok merci merci beaucoup ma ñëw euh, c'est vrai que temps bi moo ñu xoj euh, te war nañu dem ci benn point muy dernier point bi euh, muy donc la gestion donc li nga xam ne mooy denrée alimentaire yi ñu joxe Atoumane foofu dafa am un problème bu ci am sénégalais yi dañoo son, les sénégalais sont très fatigués ndimbal yi dañ ko yaakaaroon ñu yaakaaroon ko ci koor gi ne dañ koy joxe koor gaa ngi jeex ah kenn xamagul kan lañ koy joxe li mooy lan est-ce que sax manam du ab yàq.

ñaareel bi mooy li concerné euh, aide alimentaire bi dafa am ñaari base ñaari critères yoo xam ne ci la gars yi basé wu benn bi mooy le registre national unique ñu koy wax RNU ci nga xam ne dañu jàpp ni ñoo ñu ngi situation de précarité ça ta maanaam ndóol da leen dab am na si ñoo xam ne am nañ bourse sécurité familiale am na ci ñoo xam ne amuñu mais ñu ngi ci registre bi beneen bi muy benn quotité un surplus boo xam ne jàpp na nañu nit ki Covid bi daf ko indil loraange ba mu ñàkk xëy wala am problème mu dund ci critères yooyu la ñu basé wu indi benn politique man de Daaru Salaam bi ma dëkk ci comité de ciblage laa bokk ba ñu jotee suñu registre national unique mu jógee ministère ministère bu ministre Mansour Mansour Faye jaar ci préfet jaar ci maire ba ñu jot ko lu ñu njëkk a def mooy dañoo jël registre bi teg biir kër délégué de quartier bi on est un bureau de vingt personnes parmi ces vingt personnes l' des parties prenantes du quartier ñu ngi ci

zone commencé 44 bu ñoo honorable député Yacine Ndaw ñëw ba ci cimetière yi moo doon première zone deuxième zone bi doon 82 portes fi ñoom Pape Thiaw dëkkee dem ba booru Umar Lena, troisième zone bi mooy Umar Lena dem ba privé lay zone centre mooy fi délégué dëkkee ñëw taxaw centre su boobu mooy quatrième zone bi ñu def suñu maillage sur l' ensemble des vingt personnes ñu divisé ko bureau bu nekk am cinq personnes ñu yokk yeneen yeneen relais communautaire ñuy huit ñu dugg ci quartier bi bañ demee ba dajale les pièces dañ ko teg dans la transparence par exemple ma teg ñu ne Moussa Diop ñu ne ah kii kat am na ci lu mu téye Umar mee nañ jàpp ni kat Moussa bi moo ko tane ñu dindi Moussa dugal Umar noonu lañ ko séddalee ba yàlla suturaal ñu ñu jot suñu quota déposé nañ ko tey ci suba dégg nañu préfet ne diwlin bi moo tardé moo tax diwlin hmm. mais ndimbal moom luñ ci mënta def mu gën a gaaw dem si les bénéficiaires hmm. moo doon lu gën mais le problème la loi des marchés ak yooyu man fu mu jëm ci ay attardement ak yooyu dama koy faral di wax man du ma dugg ci loo xam ne xaw ma ko wala di wax loo xam ne. Euh, kii wu camion yi dégg nga Diop si est-ce que du marché est-ce que du marché gré a gré. man mënu ma wax ah, marché gré à gré. am na fi de lan moo tax lan moo tax mag. ARNP li tax mu dugal ko biir palais lan moo tax bëggul lu la leer ni bëggul marché yi gaaw moo tax mu dugal ko palais pourquoi doo analyser non non non parce que man dama ne nit parfois da ngay positif Macky président Macky Sall il est le garant de constitution moom mooy dégager vision indi politique am lu mu sentir ni lii war na mun a gaaw ay exécution da koy def kenn mënu ko ko tere su jëlee ARPP dugal ko président de la république xëy na dafa am conviction boo xam ne jàpp na ni mun na ko permettre action bi di gën a gaaw man ci fànn boobu laa koy teg mais mënu ma jàpp ne ay marché gré à gré la parce que sooy xool ku ci nekk la loi de passation de marché ku ci nekk ni nga ko gañee génnee nañ ko ci presse ku ci nekk li nga wax moom kay la ñu war a wax. li nga warloo woon ak état du Sénégal est-ce que def nga ko comme ni mu gaawee ni mu ko waxee woon foofu la anecdote bi nekk wala questionnement bi foofu la war a posé ki nga xam ne nag li nga war a def defoo mu bañ a am sentiment war a am lenn mesure bi war a war a dal sa kaw dal dal sa kaw man foofu laa gisee mais heure bi ñu nekk nii tembe tembe di wax waroon na fekk ku ci nekk li nga waroon jot nga jot ko parce que ñëpp ñu ngi doon jàpp ni dugg ci kër yi rek après ñu def confinement total ma ne leen man ñaanuma yàlla Sénégal nii mais su ñu xamoon li ci confinement total dëgg sénégalais moo ko mënut a dund parce que ñun on dañoo tàmm di vivre en communauté la preuve en est que semaine confinement bi ñu nekk nii sax tout au début vingt heures danañ jot am ñu génn di saytu policiers yeeg yooyu parce que pour man c'est de l'insouciance moo tax ñu dugg ci boobu dynamique ñàkk xam bu bëri mooy waral yenn yi dugg ci yooyu wala nit dog bu nga dox farata bàyyi farata bi teg ko nee bàyyi bañ dem dugg ci heure heure couvre-feu bi ñu naan naa ngi joxe leneen bu ko def farata alors alors que du farata loolu ñun sénégalais dañ ko dañ ko tàmm mais mais atuman ku couvre bi amul benn sens amul benn résultat ah, ah résultat bi yow def nga ko yow def nga ko vingt heures cas yi gën a yokk ah nga ñëw vingt une heures am cent loo bëgg di pandémie bi dafa am nu muy doxee gis nga coronavirus bi nii egg bu ñu ci pic bi de dafa am courbe de croissance day commencé un deux cinq dix mille deux mille trois mille nga gis mu commencé wàccaat ba ñëw zéro génn pour te dire pour attirer son attention son ton attention Chine di mu démarré woon barki démb am na cinq cas yu fa feeñaatoon bañ naan est-ce que du moom moo ñëwaat tey déggaatuñ fa kat c'est-à-dire parfois loolu moom mënul ñàkk ci feebar feebar boo xam ne amoo vaccin ay traitement yi ngay jël da koy def par tâtonnement da ngay xeex ak moom ba yàlla suturaal la nga romb pic bi mu wàccaat nga jël say mesures de barrière continuer ko def. Merci, on va terminer avec euh...

Qui mom gox bi euh, euh bâtiment bi qui mom bâtiment bu ne vous bu comme ñom ñu d'accord man ak sama jabar ñu ñëpp ñu kenn mo fi am mais nak si biir ga fukki ci fa qui bu vous fukki yu ndol ñoo fa vous nga gis go du fa parce que ñi xam nañ na gan kon lu a la leneen limu wone état ak li am du dëgg parce que Mansou dafa ñom ci critère parce que AMP dafa manam marché buñ koy def même bu féké né euh da ngay yolamal durée bi mais do ko do teggi parce que ñom téggé wuñu parce que def nañ appel d'offre gars ñew ñu étudier ñu jël le moyen 10 ans ki gëna a ñu né diw la ñu jox ko mais ñom dañ se posé beneen critère dañ né foog nga am quantité bi ñu sur place et que gendarme yi nañ dem xol ko ñu né lolo tax ba né gendarme yi nañ dem xol ba xam nga am ñu ne ñu bëri retirer seen dossier

bu mu wàññeeku mu parce que sen bamba da sey maase parce que même si guerre mondiale da daan am ño xamni ne suñu profitoo am ba fof fa la jigi sen bamba maase ba faw donc motax man japp ne doxalin bi mënoon na gën a bu fekkoon nak joxoon nak askan bi te it comme nak jël nañ ko gal gàlla nañu gaawé yëf yi ñëw ñu dem sa askan bi jox leen ko ndaxte dund googu soxla nañ ko te moy wane ne contradiction bi am ci décision Macky Sall yi décision bi moy ne yaa ngi jox askan bi pour ñu mëna tok toog askan bi di génné di dem di wuti euh euh malgré que li nga xam ne yaa ngi leen koy jox. pour wane kon tay ji confinement bi ki bi semi confinement bi euh, amul amul amul ñari merci beaucoup ci ñaari baat parce que temps bi jeex atuman le discours du président kon ça a été positif wala négatif. positif ak négatif. non non non dama wax benn. positif négatif amul. mise la application bi nga koy mën xamé xamee bi baax nee naa la sànq ci biir waxtaan ñetti message la def te ci biir ñetti message yëpp ordre chronologique bi da ko respecter

merci beaucoup merci beaucoup à Doudou euh, Dieng merci beaucoup à Toumane Ndiaye euh, di leen gërëm di leen sant bu baax baax parce que ni ma ko waxee rek ci suba laa leen woo ngeen accepté yéen ñëpp pour ñëw toog waxtaan pour mbiru askan wi je crois que ce sera pas la dernière fois de euh, dañu toogaat waxtaan surtout sax suñ joxee ceeb bi ba pare parce que bourse familiale bi nee nañ ma mbir mi teguwul ci yoon donc <laughs> defe na Atoumane il est bien placé pour wax Doudou aussi merci beaucoup à tous di leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous beneen yoon jërëjëf